xeccoo bi ci diggante Mansour fay di maire bu Ndar ak it ki nga xam ne ni mooy professeur Mary Teuw ñaan ci lu soxal mairie bu Ndar daanaka du wàññi dara ci dooleewu coalition benn Bokk Yaakaar ci lu soxal élection locale yi ñuy mal loolu lee di gis-gis ki nga xam ne ni mooy responsable politique bokk ci parti bu APR te di wuyoo ci tur docteur amatu Bamba Ka non non non yaakaaruma ko xam nga li am solo ñun dañu am benn discipline de parti dañu nekk ci coalition coalition bi moom mooy désigner candidat bi candidat bi coalition ci ginnaawam la ñuy nekk donc kooku lañuy jàppale parce que moom la coalition bi choisir donc ñun noonu la ñuy doxee. ci noonee la daal di indi ay leeral ci li waral tey jile mu ànd ak Mansour Faye moom mi nga xam ne ni nekkoon na ci ay jamono chef de cabinet bu kii fi nekkoon jëwriñ gi ñu dënk wàllum njàngum daara yu kawe yi di professeur Mary Teuw Niane. non de trahison xam nga ñun président Macky Sall moom moo ñor te jàppale nañ ko bien avant 2012 il faut que ça bi aussi lépp li nga xamante ni gis nañ ko. ci jàppale ko te xàmmeewuñ ko ñun dañ si tey ñun daal président moom mooñu soxal te yàlla def na ne aussi fii à saint coordinateur le coordonnateur c'est Mansour donc obligatoirement nous devons nous ranger loolu lañu def beneen bi aussi jege nañ ko di ko déglu pour diir que il joue véritablement son rôle de conseiller de mentor de leader tey jii moom mu gis ne daal jot na ñu jublu ci waataayu li nga xam ne ni mooy élection locale yu janvier 2022 te mu waral tournée politique yi mu sumb ci diwaan gi dañ nekkoon ci tournée politique dem seet suñu responsable yi waxtaan ak ñoom informer leen parce que dañu nekkoon ci benn période bi nga xamante ni bu am solo la pour élection yi di ñëw mooy période révision liste électorale yi ci loolu mu am ñi nga xamante ni musuñu voté ñu leen di tuddee primo votant ñu waroon leen jàppale bu ñu inscrit ci liste yi. moom nag woolu na boppam ne coalition benn bokk yaakaar dina am ndam ci élection locale yi ñuy dégmal. ah bu baax a baax a baax kuy dem di xeex moom danga naan damay gagné am nañu ay argument. ki doon jokkoo yéen fii ci Saint-Louis Yves Tendeng Sud FM. xeccoo bi ci diggante Mansour fay di maire bu Ndar ak it ki nga xam ne ni mooy professeur Mary Teuw Niane ci lu soxal mairie bu Ndar daanaka du wàññi dara ci dooleew coalition benn Bokk Yaakaar ci lu soxal élection locale yi ñuy dëgmal loolu lee di gis-gis ki nga xam ne ni mooy responsable politique bokk ci parti bu APR te di wuyoo ci tur docteur amatu Bamba Ka non non non yaakaaruma ko xam nga li am solo ñun dañu am benn discipline de parti dañu nekk ci coalition coalition moom mooy désigner candidat bi bi coalition bi désigner ci ginnaawam la nekk donc kooku la ñuy jàppale parce que moom la coalition bi choisir donc ñun noonu la ñuy doxee. ci noonee la daal di indi ay leeral ci li waral tey jile mu ànd ak Mansour Faye moom mi nga xamee ni nekkoon na ci ay jamono chef de cabinet bu kii fi nekkoon jëwriñ gi ñu dënk wàllum njàngum daara yu kawe yi di professeur Mary Teuw Niane. non de trahison xam nga ñun président Macky Sall moom moo ñor te jàppale nañ ko bien avant 2012 il faut que ça soit bi aussi lépp li nga xamante ni gis nañ ko. ci jàppale ko te xàmmeewuñ ko ñun dañ si tey ñun daal président moom mooñu soxal te yàlla def na ne aussi fii à saint coordinateur c'est Mansour donc obligatoirement nous devons nous ranger derrière lui loolu la def beneen bi aussi jege nañ ko di ko déglu pour diir que il joue véritablement son rôle de conseiller de mentor de leader. tey jii moom mu gis ne daal jot na ñu jublu ci waataayu li nga xam ne ni mooy élection locale yu janvier 2022 te mu waral tournée politique yi mu sumb ci diwaan gi. dañ nekkoon ci tournée politique.